léegi jàmm moo gën lépp hmm. lépp loo xam ne dañ ko war a def dañ ko def ci jàmm ànd ak suñu xel ak suñu xol boobu lii ñëpp di la laajte foofu dañu koy wax ñaareel bi mooy eh, lépp loo xam ne jëm na ci alal joo xam ne alalu réew mi la di ko doxal pour di ko sellal ñun Amnesty International dañ ci ànd à hmm. cent pour cent hmm. parce que vraiment li mu jur ci ay jëy ak musiba nga xam ni électricité du am ci village yu ndaw yi dispensaires yi du ñu dox jeunes yaa ngi si chômé donc alalu réew mi warees nañ koo sàmm bu baax ak ñaari loxo ñi nga xam ne nag dañu yaakaar wala ñu njort ne dañoo jël alalu réew mi bu fekkee ne dañu leen di layool tam ñu awal ko ñu jaare ko ci yoon lépp loo xam ne seen aq ak seen yelleef ñu jox leen ko ba mu mat sëkk loolu moo tax ñu dellu si ne CREI yi waaw gàtt nga bi nga xam ne loo li nga tax ñu teg ko fii baax na waaye il faut ñu réformer ko mm-hmm. ba nga xam ne képp ko xam nga ne ñëw nga ci sa CREI CREI ñu lay atte atte bi aw ci yoon kooku bu ñu ko defee dinañu sàmm Sénégal ndax li muy jur ëllëg lenn rek la tey bu fekkee ne dem nañu ba ca cëppaandaw la ba cour de cassation jeex c'est sûr que gars yi dañuy dem Genève wala ñu dem cour Euh, CEDEAO wala ñu dem ci yeneen institution yoo xam ne maanaam boo épuisé kii da ngay dem te loolu bu ñu fi demee ba nga xam ne dañuy ŋaññaat CREI dañuy dellu si waat si njaal benn nga donc lépp loo war a ñu def mooy ñu fexe ba nga xam ne dinañu am. réforme CREI mooy lan mooy dugal ko ci. maanaam euh, appel am. waaw am. Hmm. te léegi tamit bu fekkee ne dañ laa jiiñ dara bañ ni la rek waaw lii waxal lan la c'est-à-dire que. xam nga France dafa am pôle financier ñu former ay juges yu fort mhm. ñu former aussi ñi nga xam ne dañuy def ay enquête ay enquêteurs yu fort ba pare ñu jël seen temps mbir mi xam nga dafa yomb gars yi dañuy laajte xala jël seen xaalis di ko làq <laughs> dafa métti ba nga xam ne pour nga dox ba gis fa mu ne foog nga xarañ dëgg mhm. kooku tamit mooy indi jafe-jafe yi nga xam ne moom la peut-être juge yi jànkuwanteeloon d'accord waaw kon léegi il faut ñu former juge yi former enquêteurs yi ba nga xam ne képp koo xam ne jël nga xaalis bi mën na fi wala ne bitim réew parce que xaalis bitim réew bu ñuy kii téegi àddina bi yëpp même États-Unis xam nga affaire Wikileaks bi mhm. wala ñu naan sénégalais sax am na ay compte Monaco man ci sama xel ak ci sama gis-gis ak suñu réew yi ni ñu mën doole du yoon du yoon wax dëgg yàlla mhm.